abonné leen ci seen youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba audu billahi min alshaytaani arrajim bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa soxbihi wa man wala mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bii di yaatal xeltu yin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi balu ñépp xaq di baal ñépp di ñaan yàlla subhaanahu wa mu boole ñu baal di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci waxtaane jaar-jaari sang bu tedd soxna su yiw nekk koo xam ne mat na royukaay ku ne mbokk yi ku tedd kooku moo di soxna maryama buso jaaratullah di waajuru as cheikh ahmad bamba xaadimu rasul sëriñ tuuba mbokk yi nag waxtaan wi dañu ko fas yéene tënk niñ koy tënke mooy dañu koy jëmale ci juróomi tomb yi incha allahu rabbi tomb bu njëkk bi fas yéene nañoo waxtaane ak juddoom bu ñaareel bi di am njàngam bu ñetteel bi di jëfam bu ñeenteel bi di jikkoom bu juróomeel bi di jëmmam jëmmam nag mooy personnalitéem rekk ci kàllaamay tubaab mbokk yi ngir njëkkanteeg waxtu wi dañu daldi sóobu ci waxtaan wi daldi ñëw ci tomb bu njëkk bi te mooy ak juddoom akub juddoom ñaari baat yu nuroo la nag waaye waroo nañu ndax buñ ne ak juddoom mooy fan la ganee jamono ak kañ la gane jamono buñ ne ab juddoom mooy wan askan la bokk wala ñan ñoo ko meññi mbokk yi soxna Mariama Bousso ñu ñëw ci ak juddoom muy kañ la gane jamono ak fan la gane jamono mbokk yi laata ñuy dugg ci loolu dañuy leeral ne waajuru Sëriñ Tuubaa wi turam dëgg-dëgg moo di soxna bu Bousso ndax ñi ngi ko tudde seydatu na Mariama di waajur wu jigéen ci yonente yàlla isa alayhi salaatu wassalaam waaw waaye farlu gum farlu woon ci jaamu yàlla ak takkook jëfe ndigal yi di moytu tere yi moo taxoon mu dem ba am garaatu jaaratullah jaaratullah nag mooy aji dëkkaaleeg yàlla ju jigéen ji ci kalaamay tubaab mooy la voisine de Dieu la voisine de Dieu waaw mbokk yi ci lool itam maa ngi préciser maa ngi leeral ne nañuy moytu di wax jaariyatullah tey wax jaaratullah kon jaaratullah moo gën a jub jaariyatullah ndax jaaratullah mooy aji dëkkaale yàlla ju jigéen waaye jaariyatullah nag mooy jibéeru yàlla bi muy ci wàllu jaamu yàlla te boo nee jaamu yàlla jëfandikoo baatu jaariya day yore maanaawu day yore sensu esclave muy ñooñu ñu daan jàpp jaam ak yu mel noonu kon nañu wax jaaratullah tey moytu di wax jaariyatullah mbokk yi soxna Mariama Bousso mi ngi gëna jamono ci atu 1250 ci hijriya bi muy ci gàddaay gi atum 1250 ci gàddaay gi bu dee ci calendrier grégorien bi muy ci calendrier tubaab bi day tolloog 1833 waaw fan la ganee jamono am na ñu ne ma nga ganee jamono ca Golléré ca Fuuta ca Golléré ca Fuuta am na ñu ne foofu la ganee jamono am na itam ñeneen ñu ne maga nga ganee jamono ca Mbusoobe Jolof ca Mbusoobe Jolof histoire nag day bari ay wuute kii indi version bi kaneen indi beneen version loolu mook histoire baaxoo mook histoire baaxoo di ànd xëy na nag mën naa am daa ganee jamono ca Golléré ca Fuuta ginnaaw bi mu ànd ak ay waajuram ñu tuxu si ca Mbusoobe Jolof wala sax xëy na Golléré ca Fuuta nekkoon cosaanam ay waajuram daal di tuxu si ca Mbusoobe Jolof mu ganee jamono foofa ca Mbusoobe Jolof waaw loolu itam mën naa nekk waaye wallahu taala alam histoire daal laysa taarix kama kaan histoire daal bul ci nettali benn version ba saña ba sañ koo waat waaw il faut ngay nuancer waaye bul catégorique waaw euh, mbokk yi kon loolu lañu doon wax ci ak juddoom ñu ñëw nag ci ab juddoom muy ñan ñoo ko meññi mbokk yi soxna Mariama Bousso ñi ko meññi bu dee ci wàllu waajur wu góor dañuy wax ne waajuram wu góor mi ngi tudd sëriñ Muhammadu Buso ñu ko daan wax sëriñ ma Buso ci ñenn ci historien yi li wax waaw waajuram wu góor mi ngi tudd sëriñ Muhammadu Buso ñu ko daan wax sëriñ ma Buso xam naa nag ci wàllu olof ca mag ña bépp tur bu masaana commencé ma boo ko càmbaree ba ca biir rek Muhammad la daan doon ay ma dembaak ma sàmbaag ma numbeeg ma xujjaag yooyu bari na lool miim googu muy commencé day symboliser Muhammad waaw kon soxna jaara Buso sëriñ Muhammadu Buso moo ko muy waajuram bu góor ñu ko daan wax sëriñ ma Buso sëriñ Muhammadu Buso moomu sëriñ Matabara Buso mooy waajuram bu góor sëriñ Matabara bu sëriñ Hammaad Buso di waajuram bu góor am na ñu ko waxee noonu am na itam ñeneen ñoo xam ne dañ ne soxna jaara Buso sëriñ Mouhamadou so mooy waajuram wu góor sëriñ Mouhamadou Bousso sëriñ ma Bousso di waajuram wu góor sëriñ ma Bousso sëriñ ma tabara Bousso di waajuram wu góor sëriñ ma tabara Bousso sëriñ bu Bousso di waajuram wu góor waaye ak lu ci mën a am daal boo agsee ba ci sëriñ bu Bousso mii ngay continuer nga wéy di tudd maam yi day dema dem ba jokk ci Seydina Xasan Seydina Xasan mooy magu Seydina Xuseyn Xasan ak Xuseyn seydina xasan waajuram wu góor mooy seydina ali waajuram wu jigéen waajuram wu jigéen di saydatuna fatima te buñ nee saydatuna fatima lu ñu wax bintu rasul sallallahu alayhi wa sallam kon saydatuna fatima seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy wu góor kon loolu moom dañ ci dégg ne soxna jaara buso ci wàllu askanam euh, soxna jaara buso ci wàllu askanam wu jëm ci baayam ci ay waajuram yu góor moom sharifa la sharifa la maanaam sëtu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaw rax ci dolli sax boo agsee ki sëriñ xamaat bu so ngay wéy di tudd maam yi laata ngay àgg ci yonent bi sallallahu alayhi sax bokk na ci maam yi sëriñ abdul qadir jaylaani waaw ak Cheikh Abdul Qadir Jeylaani kon soxna jaara bu sa ci wàllu waajuram yu góor sëtoo na ci yonente bi sallallahu alayhi wa waaye sëtoo ci ak Cheikh Abdul Qadir Jeylaani mbokk yi loolu itam lu jar a bàyyi xel la mbokk yi ginnaaw ba ñu noppee ci waajur yu góor yi nañu ñëw ci waajur yu jigéen yi soxna jaara bu sa waajuram wu jigéen mooy soxna Aïchatu Mbàkke ñu gën koo miin ci soxna maam assowaalo mbàkke ca naawel soxna sotu mbàkke waajurum wu góor mi ngi tudd sëriñ ahmadu soxna buso sëriñ ahmadu soxna buso waajurum wu góor mooy maam ma aram maam ma aram maharam maam ma aram am na ñu ne suñ fàllu danaan wax naan ne maam ma aram de mooy suñu àddinaan kuy lim suñuy maam kuy lim kuy lim suñuy maam ba agsi ci maam ma aram mën ngaa taxawlu mbokk yi kon loolu mooy liñ doon tënk ci ak juddoom akub juddoom ñu ñëw ci am njàngam mbokk yi soxna jaara lu jëm ci am njàngam akub yaram ak njàngum liggéeyu këram lépp mi ngi ko defee ci wetu waajuram wu jigéen wii di soxna astowaalo mbàkke kon moo ko jàngal alquran jàngal ko xam-xam xam-xam yépp fànni xam-xam yépp waaye yar ko ci jikko ju rafet ak liggéeyub kër waaw ndax soxna Asta Walo Mbàkke ku géeju woon ci fànni xam-xam yépp la sëriñub daara la bu daan jàngale alquran di jàngale mboolem branche xam-xam yi mboolem fànni xam-xam yi waaye nekkoon ku yiw koo xam ne nee sax ay jàllaa bi daawu ci sol benn wala ñaar waaye da ko daan tegale ba mu mat juróom-ñaari jàllaabi ngir jëfe aaye boobu yàlla di wax naan yaa ayuhan nabiyu qul li azwaajik wa banaatik wa nisaa'il mu'miniin yudniina alayhinna min jalaabibihin dalika adna an yurafna fala yudayn waaw kon soxna Asta Walo Mbàkke moomu moo jàngal soxna jaara ba mu mokkal alqur'an mu jàngal ko fànni xam-xam yépp ba jàngalaale ko sax euh, lawal ak saan yi muy téere Cheikh Xalil boobu soxna jaara nekk ku teel a jàmbaare cim njàng ndax dañuy wax ne bi mu amee fukki atak ñett à lage de treize ans fekk na mu mokkal alquran jàng téere yu bëree bëri ak fànn yu bëree bëri ci xam-xam bi mu demee nag ba am quatorze ans nag ci la gën a yéeme ndax dafa farluwoon lool ci jaamu yàlla nee nañ sax bi mu demee ba am fukki at ak ñeent juróom-ñaari fan yu jot da daan wàcce kaamil juróom-ñaari fan yu jot muy sept jours yu ne mu wàcce kaamil bi waaw nga xam ne weer wu jot moom lu mu gàtt-gàtt day wàcce kaamil ñeenti yoon quatre fois waaw téere boobu ñuy wax dalailul xayraat nga xam ne ku bëgg julli ci yonent bi rek da cay indi ay suyar yu yéeme muy tëggin yu yéeme nekk téere bu xaw a rëy moom soxna jaara da ko mokkaloon daan ko faral di jàng di ko wàcce di ko jàng ca ndoorte la ba ca njeexintal la ci commencement ba ba ca fin ba waaw teel a soobu lool ci ngirum imaam Junayd yi muy yoonu tasawuf moom soxna jaara moom soxne jaara itam bi mu tollee ci ati ndaw ci zahir at yoo xam ne ku ca tolluwaan lañu daan seentu ci moom muy foowaka dàqanteeg yooyu ay moroomam ci zahir dañ koo soppoon lool ndax soxna jaara dafa sopplu woon nekkoon ku taaru ku rafet jikko nga xam ne ay moroomam ci zahir dañu daan ñëw ci kër ga di ko seet si ngir bëgg ànd ak moom di fo fowum tabaxantu ci suuf ak tooyal suuf ak tëbantooka tabax néegu baay mbott ak yu mel noonu waaye waajuram wu jigéen woowu di soxna astowaalo mbàkke dafa fiiroon ci moom lool waaw daawul nangu mu ànd ak kenn di fo ndax loola gis na ne yàq temps la sànq waxtu la ndax moom buggul soxna jaara di paase waxtoom di jeexal waxtoom ci lu dul am njàng moo xam njàngum alquran la wala njàngum xam-xam ak jaamu yàlla ak liggéeyu kër ndeysaan kon soxna jaara tabaarakallaahu ku ñu waajal la ku amug may la waaye nag lu jiitu may gi dañ ko waajal ci jàngal ko alquran jàngal ko fànni xam-xam yi yar ko ci jikko ju rafet waaye yar ko ci liggéeyub kër mbokk yi jigéen lu mu tedd tedd tedd bu matee dem kër a jaadu na nag ñu wutal ko boroom kër soxna jaara buso bi mu demee ba mata dem kër li koy yóbbu ca kër Maamoor Anta Sali li ko booleeg Maamoor Anta Sali mu nekk ab sangam buñ koy waxtaanee faw ñu tudd soxna Anta Njaay Mbàkke moo tax dañ naan kuy waxtaane soxna jaara saxta te waxoo ci soxna Anta Njaay Mbàkke waxtaan wa day des kon soxna Anta mii nga xam ne Ibrahima Awa Ñang a ko jur Ibrahima Awa Ñang Mbàkke Ibrahima Awa Ñang Màmma Aram jur ko moom moo sabablu li tax soxna jaara dem di sàkku ngërëm di jaamu yàlla ca wetu Maam Anta Sali foofu itam dina leeral soxna Anta Ndiaye Mbacke comme ni ma ko waxee woon Ibrahima Awa Niang Mbacke mooy waajuram wu góor Ibrahima Awa soxna Asta Waalo Ahmadou soxna Bousso Mbacke mooy waajuram wu góor Ahmadou soxna Bousso Mbacke maam mooy waajuram wu góor itam Maam Anta Sali mooy waajuram wu góor Mamor Anta Sali Mbàkke maam Balla Aïcha muy maam Habibullah muy waajuram wu góor maam Habibullah itam maam ma arab mooy waajuram wu góor kon loolu loo ciy déggee mooy danga ciy dégg ne maam Mor Anta Sali mi nga xam ne mooy waajuru Serigne Touba wu góor ak maam Asso Waalo Mbàkke miy waajuru maam Jaara wu jigéen ak euh, soxna Anta Njaay ñoom ñett ñi ay doomi baay lañu ndax seen baay ñoo bokk baay muy seen waajur yu góor yi ñoo bokk wenn waajur wu góor kon loolu itam dañ ciy dégg ne kon ndeke maam Anta Njaay mii waajur wu jigéen la ci soxna jaara ndey la ci moom waaye nag ci biir lool nag ñoo bokk ku leen yar ndax waajur wu jigéenu soxna jaara wii di soxna Astuwaalo Mbàkke moom lañ joxoon maam Anta Ndiaye mu yar ko jàngal ko dañuy wax ne sax maam Anta Ndiaye jamono mu nekkee ci kër soxna Asta jot naa am lu mu jàngal soxna jaara kon xam na ko ci am njàng ci farlu ci yiw ci mën a jaamu yàlla dañuy wax ne nag dafa am benn bis maam Anta Ndiaye bàyyi ca kër maam Mor Anta Sali Mbàkke ba mu fa bàyyi mu daal di ñëw ci kër. Euh, soxna Asta Waalo Mbàkke mi ko yar jàngal ko di seet si doomam ja kamu mu bokkaloon daara bokk moom ku leen yar mu koy seet si gane si ko bi mu ñëwee ndeysaan ci kër soxna Asta ba nuyoo ba jàmm sante nuyoog maam Asta Waalo Mbàkke nuyoog soxna jaara ca la xamal soxna Asta Waalo ne ko soxna jaara mii moom laa gane si woon tey waaw maam aswaalu ne ko lu ma leen di ganalee mu ne ko la nga ñu loon rek te mooy téere bi yàlla bi soxna aswaalu daal di indi téere bi yàlla bi muy kaamil bi euh, soxna jaara so ak maam anta njaay daal di koy xaajoo séddoo ko ci digg bi kiy jàng téereb kaw bi kiy jàng téere suuf bi wala kiy jàng xaaju kaw bi kiy jàng xaaju suuf bi bi ñu wàccee kaamil bi ba xatmu soxna Anta Njaay daldi wax soxna jaara ne ko fee ma nekk di fa jaamoo yàlla di fa sàkkoo ngërëm yiw wa fa nekk du jeex bu ma sañoon daal nga ñëw fa ñu bokk fa sàkku ngërëm bokk fa jaamu yàlla soxna jaara loola rëy ci moom lool ne ko yow ñoo bokk ku ñu yar bokk ku ñu jàngal te yow sax sama ndey nga sama waajur nga kon nag ak wujje xajul suñu diggante maam Anta ne ko du wujje de bokk yiw la rekk te bu naree diis ci yow yitam maa ngi lay xamal ne bokk nañ lu ko gën a diis te mooy téere bi yàlla bi di alquraan te bokk gi ñu bokk téere bi yàlla bi taxul ñu xëccoo taxul ñuy concurrence taxul ñu wujje waaye bokk yiw la rekk nee nañ soxna jaara ne ko yey nga ma kon nag yey na soxna jaara moom soxna Anta Ndiaye convaincre na ko ginnaaw bi mu convaincre soxna jaara bay ak soxna jaara bay ak wàllam ba mu nangu ba mu nangoo ñëw ci kër Mamor Anta Sali bokk ak moom yiw wi léegi nag mu des soxna Anta Ndiaye mu des soxna astawaalo boog mu des soxna astawaalo soxna Anta Ndiaye daal di dem ci maam astawaalo ne ko soxna jaara mi nga xam ne maag moom yaa ñu bokk yar ñu jàngal kër gee ma nekk di fa sàkku ngërëm muy kër Mamor Anta Sali yiw wa fa nekk de du jeex dama bëggoon mu bokk ak man ñëw ca kër googu ñu bokk jaamu yàlla bokk sàkku fa ngërëm bokk fa sàkku yiw nee nañ keroog soxna astowaalo li mu tontu soxna Anta Njaay dane ko loolu dey su ko diine nangoo itam ngor nanguwu ko su ko diine nangoo ngor nanguwu ko ndeysaan ndax soxna Asta Waalo loolu dafa diis ci moom soxna Anta Njaay nekkoo ko déedéet loolu du dara ndax damaa gis ne Maamoor Anta Sali ab sëriñub daara la ci jàng jàngale rek lay yëngu te daaraam jee soxla na ca ndimbal te yow yaa ma yar jàngal ma xam nga ma bokk na ci li nga ma daan tagge mooy ku man aruud la aruud mooy wàllu poésie poésie arabe ku man arud laa ku man yeneen xam-xam yi laa maîtriser naa ko lool waaye ma lay xamal ne li may man man arud li may géeju géeju ci xam-xam yi nga ma daan tagge soxna jaaram yi moo ma ci man fuuf mooma ci sut fuuf ma bëggoon rek mu ñëw ca kër ga ci keppaaru Maamor Anta di ko jàppale ca njàngale ma di ko jàppale ca donga ya lii rek laa bëgg yiw rek nee nañ soxna astuwaalo daa di wax maam Anta Ndiaye ne ko yay nga ma kon day d'accord na kon da ngay gis ne maam Anta Ndiaye yay na soxna jaara convaincre na ko bay na ak wàllam ba mu nooy ba mu ca jógee mu yay maam astawaalo bay ak wàllam ba mu nooy convaincre ko mu des mu des nag maam Mor Anta Sali mu des maam Mor Anta Sali ba mu delloo ci kër ga ba eggi ca maam Mor Anta Sali itam euh, dafa waxtaan moom ne ko kër gii nga xam ne ñoo bokk nekk ma nekk fii di sàkku sa ngërëm ak di jaamu yàlla ci sa keppaar yiw wi fi nekk yaatu na lool dama bëggoon soxna jaaram yi nga xam ne maag moom ñoo bokk ku ñu jàngal yar ñu mu ñëw fii ci sa wet bokk ak man yiw wi di fi sàkkoo ngërëm ni ma ko fiy sàkkoo di fi jaamu yàlla ni ma ko fiy jaamoo dañuy wax ne keroog Maamoor Anta Sali dafa wax soxna Anta Njaay ne ko ah yow de ngor gi ma ji ak teraanga jig nga ma lebal dina diis ci man lool ma lay wutal luñ naan wujj luñ naan wujj ndeysaan soxna jaara ne ko déedéet du doon wujj waaye li muy doon rekk mooy euh, dama gis ne yow ci jàng ak jàngale rekk ngay yëngu ci jàng ak jàngale rek ngay yëngu te moom ku géeju ci xam-xam la maag moom ñoo bokk ku ñuy jàngal waaye xam naa ne mooma sut lool ci xam-xam te mën na laa jàppale ci daara ji ndeysaan ñu ne Maamoor Anta Sali daal di nangu kon soxna Anta Njaay yay na soxna Jaara yay soxna Astawaalo yay Maamoor Anta Sali kon nag lii moo waral a ñu daldi jël soxna jaara nar ko yóbbu ci kër Mamor Anta Sali mu war fa jaamoo yàlla mu war fa sàkkoo ngërëm waaye dañuy wax ne keroog guddi googu nga xam ne ci lañuy waajal soxna jaara di ko muur ngir mu war a dem kër càmmiñam la magam ju góor ja di sëriñ mbusoobe sëriñ mbusoobe waajuru sëriñ mbàkke buso moo ne ko soxna maryaama yaa ngi bëgg a def la sa bàjjan ya daan def ak sa yaay ya ak sa mag yu jigéen ya te mooy dem kër ñun askanu mbusoobe nag ñu ngi ñu xamee ci njàmbaar ci wàllu toolu xare bu dee góor ñi bu dee jigéen ñi ñi ngi ñu xamee ci wàllu jàmbaare cib sëy te ku ci daan dem ci toolu xare day xas kuñ ci daan muur muy dem ci néegu sëy itam day xas xas nag mooy lan mooy nga sos sa bopp nga lancer sa bopp défi challenger sa bopp bu dee ci wàllu xare nga ne ay bu ma naree daw bu ma naree ñàkk jom yàlla naa torox yàlla naa alko bu ma naree jàkkaarloo sama moroomu góor di arrière sama askan yàlla naa ci gën a yées loolu lañu daan wax xas bu dee ci wàllu kuy dem ci xare noonu la ko daan waxee bu dee ci wàllu ku ñuy muur muy dem ci sëy bu ma naree yaafuus bu ma naree ñàkk teggin sama borom kër yàlla naa gën a yées ki sama askan wala yu mel noonu sëriñ bu soobee wax soxna jaara ne ko xasal ne ne soxna jaare ca teega mu daal di dem jàpp ba sell jël kaamil ba ubbi di istixaara ba ubbi rekk mu yem ci aaya boobu yàlla ne ca suuratu ahzaab maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasula allahi wa xaatama annabiyin aaya ba ca gàttal yàlla dafay xamle ne sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mujjéntalu ginnaawam yàlla du wax yooti ca la soxna jaara waxe ne bunt bu yàlla tëj dey duma ko tijji mukk daal ne li ma jaaxal rekk mooy li yàlla wax ne ginnaaw sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente du amaat waaye su fekkoon yàlla tëjul buntu yonente day ma mën a waat ne fee may bëgg dem dinaa fa jur ab yonent waaye ginnaaw nag yàlla tëj na buntu yonent incha dinaa fa jur koo xam ne saa yuñ tuddee yonent bi rek dinañ ko tudd incha allahu rabbi nee nañ lii la soxna jaara waxoon waaye entre parenthèse bala maa jàll dinaa wax ne loolu yàlla may na ko ko yàlla may na ko ko ndaxte am na benn xisso boo xam ne da koy firndeel dañuy wax ne am na benn bis genn ganug naar bàyyi ko Mauritanie nekk Cherif sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa seet si Sëriñ Tuubaa waaye bi mu ko seesee xam naa bëkki néeg yéeg yooyu yéex koo waneleeg sing bi lool mu yàgg fa lool gisul sing bi ba mu fa yàggee nag ba am benn bis nag ñu daal di koy ubbil bunt yi wanale koog sing bi bi mu jàkkaarloog sing bi mel ne kuy ñaxtu mel ne kuy kaas mel ne kuy revendiquer ne ko sing bi sa bëkki néeg yii day liñ ma def jaaduwul Sëriñ Tuubaa ne ko ah lan la noonu mu ne man ak ni ma teddee ak askan wi ma bokk di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ñëw bëgg laa gis ñu yeexal ma fii téye ma fi ay fan mënuma laa gis commencé di lim ay maamam diwa ma jur diw jur ko diw jur ko diw jur ko di lim ay maamam ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa nee nañ ja euh, ba naar bay wax loolu fekk na siñ mba siñ kii euh, siñ Mbàkke Juuf ma nga woon ca jotaay ba siñ Tuubaa ne Mbàkke Juuf jugal tontul ma kii waay nee nañ Sëñ Mbàkke Juuf daal di jóg wax naar bi ne ko yow day ku baax nga ku jàmbaare nga ndax doon sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa rek doy nag mbaax waaye bi ngay lim li la jokkaleeg yonent bi sallallahu alayhi ci ay maam lim bi daa yàgg lool càllala gi dafa gudd lool diwoo ma jur diw jur ko diw jur ko jël na temps lool waaye ñun nag suñu waa ji li ko jotalee yonent bi moom lu gàtt la lu gàtt la ndax lan danga naan rasulullahi rek ne xaadimu rasulillah te donte ci ab juddu sëtub yonent bi la sallallahu alayhi wasallam waaye li ko may xaadimu rasulillah nag du ab juddu du askan waaye ab liggéey la liggéeyal yonent bi ba ñu takkal ko garaatu xaadimu rasulullah moo tax ndeysaan dañuy wax ne sëriñ Tuuba boo ne kan mooy soppeem ñu ne rasulullah nga ne kan mooy waajuram wu jigéen ñu ne jaaratullah nga ne ban garaad la am ñu ne la xaadimu rasulillah ñu ne la ab taalibeem nuñ koy wooye ñu ne la muridullah waaw maanaam boo ne Sëriñ kan mooy soppeem ñu ne la rasulullah nga ne kan mooy waajuram wu góor ñu ne la jaaratullah nga ban garaad la am ñu ne la xaadimu rasulillah nga ne taalibeem nuñ koy wooyee ñu ne la muridullah kon rasulullah jaaratullah xaadimu rasulillah muridullah muy lu rëy rëy rëy rëy waaw soxna ne bu so nag euh, ay jëfam ci la ñu fas yéenee ñëw jëfam yu rëy rëy la kenn mënu koo waxtaane waaye bokk na ci jëfam rek sàmm gi mu sàmmoon Sëriñ suturaal ko ba ñu jot ci ndax Sëriñ Tuubaa léppam ay kémtaan la kon nag soxna jaaram yi mu feeñe ci moom bu amutoon bàmmeelu biir amutoon sutura kon soxna jaara bu amutoon loolu kon sintubaa Tuubaa mën naa làqu feeñaat faneen te kon duñ jariñu ci moom waaye liggéeyam bi gën a rëy mooy sàmmal gim ñu sàmmal sintubaa Tuubaa muy wane ay kémtaan ci kanamam waaye feeñalu ko mu nëbb ko rek te xoolal jigéenul tey yi jigéenu tey yi day benn jur waajur lu leen jafe la jur wàll yu boog jigéeni tey yi jur wàll yu lu leen jafe la ndax lan comportement ak melokaan yi tax jigéen jur wàll yu moo yombatul ki suñ jigéeni tey yi beneen bi itam mooy ku ci juróon wàll yu itam sàmm ko bañ jariñoo ko ba mu jariñ waa jamono moo lay të ndax lan danga ko dul suturaal bu wanee kimtaan da koy wax ndax xoola jigéen ñi tey seen doom yi bu reetaanee sax ñu ne ree na de bu waxee ñu ne ah moom day waxam ji leer na wala taay na wala rafet na waaye soxna jaara lu toon noonu dañuy wax ne bi mu tollee diggante suñ ginnaaw nopp ànd ak ku tedd ki diirub li mu toll diggante yépp daawul yëg aw tàngaay nga xam ne bu ko neexee mu téye aw xalta du ko lakk bu ko neexee mu taw taxaw cib taal te ci yëg dara bu ko neexee muy dox ci naaj weeg tànku neen te du ci yëg dara loolu benn kéemtaan la fekk na Serigne Touba feeñagul jamono ci zahir waaye soxna jaaraa ngi tollu diggante beneen bi itam mooy Serigne Touba bi feeñee jamono nekk ndaw ci zahir nekk lu ndaw daanaka amagul weer walla ci lay toll da daan def yu yéeme soxna jaara daana gis Serigne Touba. fekk booba amagul weer wala ci lay toll wala bu ko weesoo lam koy weesoo du bari sëriñ Tuubaa jekk-jekk rek sujjuut jël ab jëwam dëpp ko ci suuf comme kuy julli ni muy def léeg-léeg itam sëriñ Tuubaa ci jamono yi nga xam ne lay soog a gane jamono amagul weer wala ci lay tollu mu wax wax ju leer nàññi kàddu gu leer nàññi ci misaal rek am na benn bis am mbokk mu amoonum tudd mbokk mu amoon tudd Euh, Mamor Anta Sali daal di woo maam jaara ne ko ndax yor nga foofu bagaanu sunguf maam jaara ne ko waaw mu ne ko waaw kay bagaanu sunguf boobu laa bëggoon nga jël ko boole kook téere bii ma lay jox nga demal ma ca tudd moomu mbokk moomu di tudd tey nga teewal ma ca tudd ma boo demee nga joxal ma ko bagaanu sunguf bi ndawtalale ma ko mu nekk sama ndawtal jox ko téere bi ne ko na ko takkal tuut tànk bi muy na ko takkal doom ji dañu wax ne Mamor Anta Sali bi mu waxee loolu soxna jaara soxna jaara dafa daal di boot Serigne Touba bi ko bootee ànd ak moom ñuy dox di dox ba wéet ci àll bi foo xam ne soxna jaara Serigne Touba ak yàlla kase ñoo fa nekk sëriñ Touba wax ak maam jaara ci kàddu gu leer naññi te booba sëriñ Touba amagul weer wala ci lay toll wala boo ko weesoo bareegul kàddu gu leer ñi ne ko foo jëm nii soxna jaara ne ko sa baay de moo ma yónni sa waajur wu góor mu ne ko fan mu ne ko daa am mbokk mu amum tudd mu am ngénte tey mu yabal ma ne naa ko joxal naa ko ko joxal bagaanu sunguf bii muy ab ndawtalam téere bi itam na ko takkal doom ja Sëñ Tuubaa ko xanaa xamoo ne ñun duñu dem ciw xew waaw soxna jaara dëppaat ak moom ndànk teg ko ci kër ga moo ne mënoon na nekk naan laay laa man de jommi naa man de waaru naa waawow kuy bootu di wax wala kuy nàmp di wax waaye daf doo ko faa rek daal di koy suturaal moo tax dañuy wax ne Serigne Touba baaxoo wutoon di dem ci ay ngéntee ki ay céete ki ay dëjëg yooyu wala ay jaale da daan wax naan mën a jaxale de mën a jàllalee ko gën mën a jaale mën a jàllalee ko gën jàllale nag mooy rammu texeel nit ki yóbbu ko aljanna loolu lu jar a bàyyi xel la waaw euh, soxna jaaraa ngoog ndeysaan ak mbaax ga moo tax dañuy wax ne bokk na ci ay jëfam sax ginnaaw bi mu dëddoo àdduna ci zaahir ginnaaw bi mu dëddoo àdduna ci zaahir moom soxna jaara feeñu na sëriñ tuubaa ci feeñu yoo xam ne ñaari yi ñoo ci gën a fës ñaari yi ñoo ci gën a fës bu njëkk bi mooy sëriñ tuubaa ba mu nekkee gabon ba ñu gasal ko loolu ñuy tudde am yeer am yeer muy pax moomu ñu gasoon daal di cay teg ay ñax xaw koo muur ak suuf Sëriñ Tuubaa ñëw toog di bëgg jàng wala bëgg julli wala bëgg jaamu yàlla rek mbir ma pax ma maanaam ñax yee daal surux daal di mëbëx Sëriñ Tuubaa tàbb ca pax ma mu nekkoon pax mu doy waar pax mu ñu taaloon ak safara nee soxna jaara moo ko fa fekk jàpp ci loxoom génne ko ne ko doxal nga wéy liggéeyali sa boroom te booba dañuy wax ne soxna jaara génn na àdduna ci zahir beneen bi itam mooy néeg bu xat boobu ñu dugaloon sëriñ Touba ca dakaar nga xam ne waykat yeeg waxtaankat yi dañ koy waxtaane banaan néeg ba dafa xat ba noppee ami ràbb nga xam ne fu Serigne Touba tegoon tànkam rek ràbbu nga jam ba sar ba génn ca tànk ba bañ ko dugalee ca néeg booba day soxna jaara moo ko fa fekk ne ko bul jàmbat bul ñaxtu bul wane naqar ndax lan yonente yi fi jaaroon yépp ci ay nattu lañu ñu fi ñu àgg ci ay nattu lañu amee grade ak daraja yi ñu am wàllu yi itam noonu kon yow mii yàlla dalay waajal bul jàmbat te xam ne lii lu baax rek nga ci yaame waaw soxna jaara ci wàllu liggéeyam noonu mu farloo woon ci jaamu yàlla noonu la farloo woon itam ci liggéeyu kër da daan root ndaa yépp ba moo daan rootaaleel sax ñamu doon bokkal di sàkku ngërëm ca kër Maamoor Anta Sali nga xam ne bu doon tay la ñoom la tuddee ay wujj kuy root ndaa nag bay rootaaleel say wujj ah loola day néew ma amul waaye kon lu jafee ngoog donga yi miinoon ko lool ba nee nañ sax bu daan root bay dox dañ koy ñooru di tanq ca di tànq ca ndox may naan waaw nee nañ fas wu mu masaana romb nga fiiru nga siisu bëgg koo topp ndax ni mu daan toppatoo jurga ga béy bu mu romb nga meem xar mu mu romb nga mbee moom soxna jaaratullah ndeysaan euh, moom soxna jaara itam euh, tabaarakallaahu bokk na ci liñ koy nettilil sàkket wa bokk na ci lañ koy nettilil sàkket wa sàkket wa ni mu demee dañ ne Mamor Anta Sali moo doon def aw sàkket bi muy defar sàkket soxla ku ko jàppale mu geesu yam ci soxna jaara mu daal di koy woo ko ñëwal téyel ma sàkket wi nee nañ bi mu ko téyelee sàkket wi xam naa ci nettali ñenn ci historien yi dañ ne Mamor Anta Sali dafa demoon ca jumaa ja wala jàkka ja di julli diggante bi ba mu jugee ca jàkka ja nag fa mu doon jullee mu doonoon waxtu gee mu daal di fàtte ne moo téyaloo woon soxna jaara sàkket wi mu jóge ca jàkka ja rek dugg ci néegam daal di fatu guddi gi nag mu fanaanee taw ba fajar bi fajar jotee ba Mamor Anta Sali génne di waajal waxtu wi mu génn rek am lu mu séen muy ñuul mu ne ko kan la mu ne ko man la euh, soxna jaaratullah mu ne ko waaw yow looy def fii mu ko ah, yaa ma joxoon ndigalu téyal sàkket wi te joxagoo ma ndigalu bay bàyyil waaw yaa ma joxoon ndigalu téyal te joxagoo ma ndigalu bàyyil gisoo de yaa ma téyaloon sàkket wi yaa ma téyaloo woon sàkket wi te waxagoo ma bàyyil Mamor Anta Sali yéemu keroog nee na ñaanal na fa soxna jaara ñaan yu yéeme bokk na ca ñaan yam ko fa ñaanal sax nee dane ko yàlla na nga am doom joo xam ne ni toq ndox yi tollu yàlla na ko yàlla booleeg lim bu ni toll ci ay ruux ñu topp ko déggal ko nekk ay taalibeem defe naa ne loolu feeñ ne ci sëriñ Touba waaw euh, sëriñ Touba moom soxna jaara boobu nee nañ mas naa jël semmiñ di xar gaal booba dafa bëggoona tàngalal kafe Mamor Anta Sali sëriñam ba mu wër wër ci àll bi gisul matt mu jël gaalam xar ko def ko matt tàngalal ci Mamor Anta Sali kafe ga ngir rek sàkku ngërëm te mbokk yi gaal ci jamono yooya lu seeroon la mooy armoire yi de armoire yi ñuy defare ay deux cent mille ak trois cent mille ak i cinq cent mille ak i un million ki wala ay million wallahi moom la xaroon def ko matt togg ci kafe jox ko sëriñam ba ngir sàkku ngërëm rek waaw mbokk yi soxna jaara bu so itam noonu la mënoon ay yare daawut waxtaan mukk ay waxtaani léeb ak waxtaani jamono yi waaye saa yu daan waxtaan rek day delloo nit ñi ci yàlla ci yonente bi ak yonente yi ak yowmal qiyaam ak saalixiin yi ak saalixaat yi ñu baax ña rek la daan waxtaane boo demee ca minanul baaxil xadiim as cheikh Mouhamadul mi ñu koy nettali nee na wa kaanatil waalidatu jaaratullahi maryama radiyallahu anha saalihatan afifatan dayyinatan kathirata solaati wa sawmi wa sadaqa mustaslimatan li rabbiha qaa'imatan bi waajibaati diiniha wa fi ma baynaha wa bayna sheikh al anifi قرينها وكانت تربي أولادها على الدين والمروءة والطهارة وكثيرا ما تحكي عليهم حكاية الصالحين sëriñ Basiru nee na soxna Jaara Buso mi nga xam ne mooy waajuru sëriñ Tuuba jigéen ju yiw la woon jigéen ju fegu la woon ku amoon diine la woon ku bari woon lum daan julli la bu nee ku bari lum daan julli nag jubluwu ci rek julli farata kase kase waaye da ci daan boole ay naafila yu bëree bëree bëri waaye ku fonkoon woor la daawud yem ci koori farata waaye da ci daan boole koori naafila koori gàtt nga ku mënoon a saraxe la générosité ku tabe la woon waaye ku bàyyee woon boppam ak yàlla la ku jébbaloon léppam ak yàlla la waaye ku mënoon waslu àq la ci digganteem ak boroomam waaye ku mënoon a waslu àq ku mënoon a farlu ci digganteem ak boroom këram boobu di Maamoor Anta Sali waaye ku mënoon a yar ay doomam la moo xam doomam yi mu jur ci jurug zahir ak ñi mu jur ci baatin taalibe yi da leen daan yar ci diine di leen yar ci kersa ak jomb ak jomblo ak jom di leen fonkloo laab laab ak sell ak dileen leen nettali histoire yonente yi gaayu baax yi wàllu yi nee nañ daana wax ne inna qiyaama allayli min dabi saalihin wala inna min dabi saalihin qiyaama allayli waaw nee na dee leen fonk taxaw guddi naafila guddi ndax bokk na ci li gaa baax yi fonkoon bokkoon na ci jikkoy gaa yu baax yi ak seenu pasteef dañoo fonkoon naafila guddi nee sëriñ Tuubaa day Euh, dégg gum daan dégg kàddu googu ci soxna jaara mi waajuram muy soññe ci taxaw guddi taxoon na ba moom Serigne Touba bi mu tollee ci at yu ndaw ki zahir ay ñeenti at ak juróomi at ak juróom-benni at nga xam ne dalagul jàng guddi gu jot da daan taxaw rek da daan taxaw mel ne kuy la fekk ci zahir sax du ma wax ne xamaguma xamagul lu muy tari de ndax Serigne Touba booba lu mu xam ak lu mu xamul kenn xamu ko ndax ku yàlla yàgg baaxe la fa ko yàlla baaxee fa ko yàlla séddee kenn xamul kañ la. moo tax dañ naan daal ki zahir daal booba ay atam ci ay ñeenti at ak juróomi at ak juróom la tolloon waaye dégg gum daan dégg soxna jaara di saxal ci noppam ak noppi taalibe yi naan leen naa naafile guddi de taxaw guddi ci melokaani gaa yu baax yi la bokkoon moo tax Serigne Touba guddi gu jot dañ ko daan gis muy taxaw ndeysaan kon da daan wax ne naa naafile guddi maa ngi ko tàmmee maa ngi ko jàngee ci sama waajur soxna jaara lu yéeme la mbokk soxna jaara Euh, bërëb yi mu jaar ci lañu ñu fas yéenee dikk soxna jaara kon bërëb yi mu jaar mooy gollare ga mu feeñe jamono wala mbusoobe jolof muy diggante fuuta ak jolof bi mu jógee foofu xay na dem na ca soxna astowaalo ca naawel ba fa jógee nag dem ca boroom këram Maam Mor Anta Sali nekkoon nañ mbàkke bawol jóge fa nekk xuru mbàkke jóge fa dem poroxaan waaw kon soxna jaara danga nga naan diggante fuuta ak jolof ak bawol ak saalum waaw li ko waral nag mooy ginnaaw ba nga xam ne Maam Mor Anta Sali bu ma nee li ko waral mooy li waral ak demam poroxaan moom soxna jaara loolu itam lu jara leeral la li ko waral mooy Maam Mor Anta Sali dafa njëkkoon a nekk Mbàkke Bawol jóge fa nekk xuru Mbàkke bi mu nekkee xuru Mbàkke nag euh, nitu yàlla ku mag kooku di Màbba Jaxu Ba jihaad gi mu doon jihaad doon xeex ak noonu yàlla yi mu soxla ci ndimbal daldi di sàkku ci Maam Mor Anta Sali mu bokk ci ñi koy dimbale ak yeneen nitu yàlla sax moo waraloon Maam Mor Anta Sali bàyyi ko xuru mbàkke dem saalum sanc ca poroxaan ca wetu ñooro waaw ndeysaan moo tax soxna jaara du sëriñ tuuba rek la am ci njaboot la am ci doom waaye doomam ju mag mooy Mamor jaara mbàkke boroom boroom boroom saam Mamor jaara mbàkke boroom saam magi mag Mamor Jaara ak Serigne Touba ñoom ñaar ñëpp ñi ngi feeñe jamono ci Mbàkke Bawol waaye amaat na jeneen doom ci ñuy wax maam Xabibullaa Mbàkke maam Xabibullaa dañuy wax ne ma nga feeñe jamono ca xuru Mbàkke fa des sax bàmmeelam bërëbam a nga fa maam Xabibullaa Mbàkke am na ñeneen ñu ciy tudd itam soxna Fatima Mbàkke kooku itam nee nañ ma nga ca xuru Mbàkke falañ ko denc fa la feeñe jamono am na ñu wax kooku itam loolu ba jara bàyyi xel la waaye dinaa taxaw tuuti ci Mamor Jaara Mamor Jaara ku yéeme woon la ndax dañuy wax ne da daan naafila téeméeri ràkka guddi gu jot ku Sëñ Tuubaa fonkoon la nee nañ am na ko mas a ñëw ki Sëñ Tuubaa ne ko daa mel ne yow day ñi la topp sa yeneen mag yeeg rakk yi daa mel ne li nga leen sedd wala sa yeneen rakk yi ñi la topp daal li nga leen sedd séddoo ko seddoo ko maam Moor Jaara Sëñ mel ne waxin woowu jibuwu ko mu mel ne ku wax waa ji ne ko tuub ko waaye tuub ko ne ko maam Moor Jaara li ma ko sedd sédduma ko kenn kenn ndax lan man de su ma neexoon mën naa feeñee ci néegu ndayu ku ne waaye ba ma tànnee bokk ak moom néegum nday rek booba laa ko sedd lu ma séddul kenn beneen bi itam mooy Sëñ Tuubaa dañuy wax ne moo waxoon ñuy woowee Maam Moor Jaara magi mag daanañ wax ne itam Sëñ Tuubaa da daan wax ne jamono jii ñu toll de man rek la yàllay déglu ci kaw suuf man rek la yàllay déglu ci àdduna waaye man itam Maam Moor Jaara rek lay déglu yëpp ay may la waaw defee kon loolu lu jara bayyi xel la soxna jaara ca personnalité ba foo ko takk wee soo na ko nii ñu koy wanee ci photo yi dañuy wax ne melutoon noonu ndax buñ koy wanee ci photo dañu lay wan koo xam ne day mel ne amoon na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett fukki at te soxna jaara àggutoon foofu ci zahir waaye fanweeri at ñett rek la amoon te itam tuuti wutoon ku amoon jëmm la ku amoonu taar la ndax jigéen bu ko yàllay may daraja da koy def ku am jëmm ku am taar boole woon na ñaar yooyu waaw looloo taxoon mu mënoon liggéeyu kër ci wàllu togg soq baag fuut baag root baag yu mel noonu yàlla mayoon na ko kàttan lool moom soxna jaara ndeysaan bu ko defee moom soxna jaara nag euh, mi ngi wuy ji boroomam ci atum 1866 à l'âge de 33 ans bi mu amee fanweeri at ñett la wuy ji boroomam ci atum 1866 ca Poroxaan ca Saalum ñu jébbal ko boroomam ca poroxaan fa lañ ko denc ndeysaan dañuy wax ne keroog biñ koy jébbal boroomam moom soxna jaara Maamor Anta Sali dafa jël loxoom dóor ko ci suuf ca bàmmeel ba ne bàmmeel bii day alquraan lañ fi suul bés ni ki tey di wane ne soxna jaara alquraan yi kese la alquraan ju daan dox la ndax nu mokkale woon alquraan te fonk ko mën koo teral mbokk yi ñu ñëw ci màggalu poroxaan màggalu poroxaan nag dañuy wax ne sëriñ Touba moo ko njëkkoon a junj ni ko junje mooy sëriñ Masamba sëriñ Masamba Mbàkke rakku sëriñ Touba euh, dafa am benn bi sëriñ Touba sàkku ci moom mu koy maasal ay xasooid ndax sëriñ Masamba kenn ku ne xam ne ne bokk na ci ñi daan maasal sëriñ Touba xasooid yi sëriñ Touba sax da daan wax ne sëriñ Masamba mii dey du maa sàkku ci moom muy maas xasooid yi wala yàlla sàkku ko ci moom waaye xasaayid yi ñoo sàkku ci suñ boroom sëriñ Masamba di leen maas ci noonu nag am benn bis sëriñ Masamba siñ Tuubaa jox ko ay xasaayid ne ko maasal ma yii muy maas di maas di maas ba guddi gi sori mu xaw a sonn wala mu xaw a gëmmentu wala jamono ji xaw a lëndëm muy dallu di forbët ba muy forbët nag mu daal di gént ca gént ga dafa dégg yuuxu mu foor fa dégg yuuxu mu foor yuuxu bu am doole bi mu xëyee ba bés set mu toog ak ku tedd ki sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmad Xaadimu Rasuul di waxtaan ak moom sëriñ Tuubaa xam na lépp sëriñ Tuubaa wax sëriñ Masàmba ne ko sëriñ Masàmba xanaa yuuxu mi nga déggoon démb ci sa gént gi de am na doole lool de sëriñ Masàmba ne ko waaw Mbàkke mu ne ko xam nga lu ko warala mu ne ko déedéet de Mbàkke mu ne ko li ko waral mooy sëriñ siréloo boroom sannuusi moom laa santoon fekk sëriñ siréloo génn na àdduna ci jamono jooju mu ne ko sëriñ siréloo de moom laa santoon néew yi nga xam ne ñoom lañu denc ci armée li njaareem yi ñu nekk samay taalibe mu tuxalal ma leen yóbbu leen tuubaa bi mu leen di tuxal nag am kenn ci taalibe yi koo xam ne sëriñ siréloo da koo fàtte kooka nag moo doon yuuxu di wax sëriñ siréloo ne ko bul ma fàtte yóbbu ma tuubaa yuuxu boobu nga dégg sëñ Masamba wax sëñ Tuubaa ne ko Tuubaa de jar na ko sëñ Tuubaa ne ko Masamba Tuubaa ëpp na ko Tuubaa ëpp na loolu ci noonu ñu ne sëñ Masamba di xalaat soxna jaara xelam dem ci soxna jaara ne waaw sëñ Tuubaa ginnaaw néew yi nekk Tuubaa néew yi nekk njaareem day taalibeem ñoom lay tuxallu Tuubaa ngir yiw wi nekk Tuubaa waa soxna jaara mi waajuram nekk Poroxaan nag bi muy xalaat loolu sëñ Tuubaa xam li nekk ci xelam ne ko Masamba xanaa sa xel dafa dem ci soxna jaara mu ne ko waawoo mu ne ko kooku dee magum jëmm la du gone kenn magum jëmm la waaw te dëkkam boobu di poroxaan dey ku ne fa cëpp te fa sab tànk dinga ma fa fekk wala boo ma fa fekkul balaa balaa yàgg ma fekk la fa ku ne fa cëpp sab tànk rek danga ma fay fekk wala boo ma fa fekkul balaa yàgg ma fekk la fa te des na tuuti dana am bisu boppam nag bisu boppam nekk bis bu rëy kon Sëñ moo njëkk a judd moo njëkk a junj màggalu màggalu Poroxaan waaw euh, léegi nag ginnaaw comme niñ koy waxe woon Maam Mor Anta Sali la ko yóbbu woon Poroxaan mooy jàppale màbba Jaxu Ba ca jihaad ya ginnaaw bi soxna jaar a génnee àdduna ci atu 1866 ca déwén ga muy ca déwén sa muy atu 1867 ca ba Jaxu Ba génn àdduna ca somb ca somb waaw Mamor Anta Sali nag daal di bàyyi ko Poroxaan dem Kayoor wala Kajoor dem ca côté Kajoor daal di dem sanc Paataar jóge Paataar dem Mbàkke Kajoor dem Mbàkke Kajoor waaw léegi nag kon Sëñ Tuuba lu jiitu 1895 di at mi ko tubaab bi yóbboo ca tukkiyu yu ca réew yi sori ya lu jiitu atum 1895 Serigne Touba daana faral di dem Poroxaan di ziyaare barabu soxna jaara boobu waaye nag biñ demee ba 1895 nag amatul jot ga ndax mi ngi woon ci loxoy tubaab yi waaye biñ demee ba ci atum 1912 atum Touba sant. kenn ci njabootam muy cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke di waajuri Serigne Moustapha Bachir ak Serigne Mountakha ñoom caatu 1912 Serigne Touba woo Serigne Bachir jox ko ndigal ne ko dama bëgg nga dem Poroxaan nemmikul ma gëstul ma ba xam barabu soxna jaara dama bëgg nga dem Poroxaan gëstu ba xam barabu soxna jaara nga toppatool ma barab ba toppatool ma dëkk ba. Serigne Touba ci Serigne Bachir Serigne Bachir bokk ci atu 1912 mu def lu ko Serigne Touba santoon dem Poroxaan di laajte di gëstu di gëstu ba ñu joxoñ ko barabu soxna jaare ne ko fii la bërëb bi nekk mu daal di koy defaraat toppatoo ko ba mu set waaw daan fa faral di dem di ziyaare ba nee moom Serigne Basiiru sax moo fa mujj tabax euh, génn kër gu gu baax kër gu muriite gu muxtaare waaw daadi di euh, taxawal màggalu soxna jaara kon màggalu poroxaan Serigne Bachir moo ko njëkk a taxawal nee nañ mi ngi ko njëkk taxawal première édition bi premier màggalu poroxaan muy màggalu poroxaan gi ñu njëkk amal Serigne Bachir mi ngi ko amal Cheikh Mouhamadul Bachir mi ngi ko amal ci mille atum 1951 am ñu ne ci atum 1952 waaw diggante 1951 bu dul 1951 daal di 1952 ci la Serigne Bassir njëkk a taxawal màggal Porokhane première édition waaye bàyyiwu ko nag at mu jot mu koy taxawal ba ni mu delloo ci ngërëmu boromam moom Cheikh Mouhamadul Bachir ci atu 1966 waaye ba mu fi jóge itam ah ki njëkk a nekk xalifaam di Cheikh Moustapha Bachir. nekkoon jàmbaare lislaam nekkoon murid sadiq nekkoon ku takku ci jaamu yàlla ak liggéeyal sëriñ tubaa amoon gis-gis lool nag moom itam mujjewul puso ba mu réer de waaye gën naa dundal poroxaan yéwénal na barabu soxna jaara ba defar ko ba mu yéeme waaye tabax na jumaay poroxaan ja waaye tabax na fa itam kër soxna jaara njabooti sëriñ yi kenn ku ne mu wutal la fa daluwaay waaye tabax na daaray soxna jaara yi ndax dane soxna jaara bu doon dund turandoo yépp dañ leen a war a jiital jàpp ci seen loxo jox leen soxna jaara mu yar leen ginnaaw nag soxna jaara dëddu na àdduna ci zahir ñoo ko war a wuutu ci yaral ko turandoom ya moo tax daaray soxna jaara yee gisoo la fay génne ci ay turandooy soxna jaara di jàng alquran alquran ju yéeme ju tegu ci yoon joo xam ne tajwid baag xawaayidu tartil ba yëpp dañ koy respecté li koy wane mooy ay jàmbaar lañ ci concours yi ñu amal ci alquran fu ne ci àdduna bi ñu cay jàmbaare lañ ca ñey féete ca kanam lañu doon ndax man guñ man alquran waaye ñu leen di yar ci liggéey di leen yar ci liggéeyu jigéen nag ñii mën a ñaw lool ñii mën a ràbb lool ñii mën a togg lool am na sax ay soxna jaara yoo xam ne ca daara jooju lañ jànge tey jii samp nañ seeni daara di jàngal ñeneen ñenn ñi sax ñu jëlaat leen ca daara jooju ñu jànge génne fa ñu fay jàngalewaat loola sëriñ Moustapha Bachir moo liggéey liggéey bu rëy boobu ndeysaan waaye bu fi sëriñ Moustapha Bachir jugee ah a cheikh mun Muntaqa mi nga xam ne mooy xalifa mooy xalifab sëriñ tuuba xalif général des mourides ci jamono yii ñu nekk waaye nekk xalifa sëriñ bashir moom itam comme ni ko olof yi di waxee ku yokkul yaa wàññi waaye moom day wàññiwul yokk na liggéey ba sàmm na lam fa fekkoon gën na koo taaral gën na koo yokk waaye gën na koo yaatal moom Cheikh Mountakha Bachir borom mbégte mi borom taar bi yàlla na fi yàlla yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal yokk ko wér ba mu matal naal yi ak université bu mag bi nga xam ne moom lay taxawal mu nar a nekk jàngukaay bu rëy fu ne ci àdduna bi ay jàngalekat di fa bàyyikoo di yaatal xam-xam waaye ay jàngkat di fa bàyyikoo di ñëw di yokk seen aliwa loola lu rafet rafet la waaye mu ànd kook rakkam ya bokk na ci as cheikh Mouhamadul Fadil ibnu cheikh Mouhamadul Bachir ñu gën koo xam ci sëriñ Alaaji Mbàkke moom itam ku farlu la ca liggéey ba nekk rek ci wetu magam ya di ko jàppale waaye fàttewuñu itam e, sëriñ e, Isxaaq Mbàkke moom itam ku farlu ca liggéey ba la waaye duñu fàtte mukk sëriñ Abdul Hakim Mbàkke gaynde Xelkom waaye duñu fàtte itam sëriñ Moussa Naawel mu mag ma moom Cheikh Mouhamadul Bachir waaye doomi sëriñ Moustapha yi doomi sëriñ Muntaqa Bachir ya ñu mel ne sëriñ Moussa Naawel ñu mel ne Serigne Bassirou Porokhane ñoom ñëpp rekk ñu nekk jàmbaar ca liggéey ba kon nag mbokk yi fii la ñu taxawandi di leen ñaanal màggalu jàmm di leen ñaan ngeen ñaanal ñu seen bi yàlla yokk ko yàlla aar ko yàlla gën koo jëmale ca kanam nag bu baax a baax a baax a baax ba chaîne bi di liggéeyloo ñu bëri ñu bari di liggéey ci seen YouTube bii yaatal xel ci di ci am seen teraanga ñu tedd ci teral ci waajur yi mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi mbokki jullit yi jaamu yàlla yi humanité bi àdduna bi mindeef yépp loolu ñu ngi sàkk ngeen di ñu ko ñaanal kon mbokk yi dañuy tàggoo dañuy taxawandi fii di leen ñaax ngeen abonné ci seen YouTube bi di yaatal xeltiin di bàyyi xel waxtaane di commenté di aimé ndax fi la njëriñ yee gën a yaatoo jaa ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa